وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ينبكو انترنتي من سيدة خديجة نغنكو خمتي ميركي من مولين دي نيو دي لين تتغل دي لين نيانال الجم اكسلام سلام di ñaan sunu yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci mbas mii nga xam ne mi ngi fi ba léegi yàlla raxas ko ci taw bii wa ma dalika ala allahi bi aziz waa mère Kéman ñu gën la ñu gën la xamee ci sa tur mère Kéman waaye ñu lay wooyee it sa tur Seyda Khadijatou Ndiaye tey jii ñuy waxtaanee tabaski histoire tabaski fan la jógee waaw subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu al hakim yàlla nañu yàlla may ñuy wax li ñuy wax ñépp di ko dégg ak topp euh, bu ñu ñëwee ci histoire tabaski dañuy ñëw ci yonent yàlla ibrahim alayhi salaam bi nga xamee ne yàlla may na ko mu am doom ju ñuy wax ismail nga xam ne sax day tatagal suñu boroom di ko sant ne الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاq donc Ismaïl moom mooy maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ko doon wax nabi sallallahu alayhi wa sallam ibnu dhabihayn maanaam mooy doomu mooy doomu ñoo xam ne dafa dafa dafa jóge ci ñoom te ñoom ñaar ñépp dañu leen na defoon pour ñu sacrifier leen bi yàlla defee Ibrahim soxna saarata may ko jaamam boobu ñu gore woon bu ñuy wax hajara mu am ci ismail yàlla xaar ba mu mu neex ci moom loolu gëmewu ko ndax xalaatoon na ne du am doom bi mu amee fukki at la sunu maam ibrahim jot wax yi bu ñuy wax ci jibril alayhi salaam mu ne ko sunu sa boroom nee na sa dom ji ling koy bëgg-bëgg yépp yalla nee dang koy def qurban manam dang koy ray ndax mu jegeyoo ko sunu borom subhanahu wa taala waye comme ñu xam ibrahim mom moy khalilullah non lañ ko tuddé mom moy xaritu yalla mune sam'an wa taa manam topna degna topna ni nga ko waxe sunu borom dina ko def dal di woo doom ji Ismaayil dal di ne ko ah man day am na lu ma gis ci sama gént ne ko inni ara fi manaami inni azbahuka fandur maada tara yow day sama doom Ismaayil booba dëgër na pour naa am fukki at commencé période adolescent mu ne ko yow day sama doom man dey gis naa ci sama gént ne ñu ne dama laa war a rendi jaamoo ko sunu boroom waaye foofu la ñuy xoole ne yar dafay am ci doom boo yaree sa doom ci lislaam yar ko doom ci gëm yàlla yar ko ci bëgg diine ak respecté ay waajuram loo wax ne sunu borom a ko def ciy ànd lan la doom ja tontu Ismaayil alayhi salaam mu ne ko fafal ma tu'mar sa tajiduni insha allahu min assabirin defal li la sa borom sant dinga ma fekk insha allahu ma nekk nit ki nga xam ne may ko muñ ki maanaam nangu Ibrahim am njàqare lool am tiis lool waaye moo xam ne li yàlla santaane amul ci wax daf ko war a topp rek sunu borom bi tabaaraka wa bàyyi ko mu dem jël dom ja diko def ikhtibar diko def natu, ba xam ndax bi, di dina ko top wala deet ay sunu waa ay sumay mbokk internet yeen ni may suivre ci ci réseaux sociaux yi ak ci groupe bi yalla du tek nattu mukk kum mu yalla du tek nattu mukk kudul julit bu mu xamne sa muñ dina fa egg motax yéfer ak ku gëmul yàlla sunu boroom du la teg benn nat ndax xam na ne doo ko muñ wala sunu mbokk tubaab yi bala ñu leen di teg natt natt ba di commencé xaru nañ bu natt bi commencé def nañ jëyya parce que amuñu iman amuñu gëm waaye sunu borom ànd ak maam Adama astaghfirullah ànd ak sunu maam Ibrahima alayhi salaam ñu dem ba ca tund wa mu tër ko ci benn xeer. daldi di daas paaka bi ba mu ñaw waaye Seydina Ismaayil sunu maam daal ne ko jëlal nga morso jëlal morso nga takk ko ci samay bët waaw mu ne ma mu ne ko falama tallahu lil jabin falama aslama wa tallahu jabin bi nga xam ne ñoom ñaar ñépp jël nañ seen mbir yëpp dénk ko ko yàlla daldi nangu dogal ba mu tek ko dom ji dal ne ko papa jeulal morso nga tak samay beut bala yermande di dox sunu digeunte nga xamne do ko muna baña def manam sax loxo dir lox wala nga am yermati man te defal lila yalla wax mom lañuy wax euh, serigne cheikh radiyallahu anhu cheikh tidiane maktoum man mi jarna ci wax am fu doomu adama di tollu gëm yàlla yàlla teg ko ndogal mu nangu ndogal ba mais am na fu muy toll muñ nga du ko dépassé bu ko dépassé mu weddi yàlla te fekk yàlla daf ko bëgg a boole ci almuttaqin ci ñi gëm donc yàlla du ko eggal foofu dangay dem ba am ay seconde nga bëgg a weddi rek yàlla daal di lay indil farajan wa maxrajan subhaana wahidul jabbar nee na fa la ma aslama wa tallahu lil jabin nee bi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp d'accord nañ jël nañ seen mbir yëpp wekk ko ci yàlla maam a maam ibrahim daas paaka bi ba mu ñëw mu daal di jël paaka bi bëgg ko koo bëgg koo teg ci putu doom ji ismail alayhi salaam rek ci la jibril ñëw ci seconde yi téye loxo ba daldi di remplacer teg fa benn kuy bu mag fa lay wax ne wa fadaynaahu bi dibhin azim waaye ñu dellu ginnaaw tuuti ndax bi nga xamee ne Ibrahim jël na doom ji dem pour di ko yóbbu ca fa mu war a tëdd iblis saay-saay bi laanahullah ñëw dogale ko ne ko yow Ibrahim comme niñ koy defee ñëpp rek boo gëmee yàlla bu la nattu dalee seytaane day day day day màndargawu ci ku la jege lool muy xaritoo muy jëkkëroo muy mbokkoo muy ku la mun a jege rek nga dégg mu ne yow li nga doon julli lan la lay jariñ bu fekkoon ne gëm nga yàlla nii nga gëmee yàlla yàlla du teg nattu ku ko gëm maanaam di la toroxal wala di la def lii wala lii di la dal kooka bu ñëwee nee ko yow yaay seytaane bi ndax seytaane bi feeñu woon maam Ibrahim ba ko yàlla waxee ne jëlal sa doom ji nga rey ko seytaane boobu mooy màndarga moo tax ma ne seytaane dafa am ci nit dafa am ci jinne ñun nag li ci gën a bëri li ñuy dal mooy cheytaane ins mooy cheytaane nit ndax mooy awliya cheytaane jinn la maam Ibrahim jël benn xeer daal di koy sànni ne ko idhab innaka rajim demal yow rajim bu bon nga yow xam nga ne cheytaane rajim nga duma la topp mukk ndax lii ma ñëw jibril mi ma doon feeñu moo ma ñëw wax ma lii yàlla defi ma génd ko léegi ñu ne jël na xeer bi iblis topp ka rek pour ndax mu ngi dem ci xeer ba mu waroon a dem tëral fa Ismaayil mu topp ko Ibra Seydina Ibrahim di ko sànni Seydina Ibrahim di ko sànni ba muy doon juróom-ñaari yoon loolu mooy jamratul aqaba bu ñuy acc soo gisee nit ñi di sànni cheytaan mu cheytaan maanaam dañ koy sànni ndax la mu doon feeñu maam Ibrahim ne ko bul def li la yàlla wax ndax seytaane moo la wax ne nag ko def au contraire moom moo doon seytaane bi waay waay waay waay suñu mbokk déglukat yi heure bu nit ki amee nattu mu wóor ko ne soo xoloo dara ci sa diine yaa ngi topp yàlla maandu nga yaa ngi liggéey di am sa looy suturloo nattu dal la waaye bul topp nit ki lay wax ne yow lu tax yàlla teg la lii lu tax yàlla natt lii yàlla du natt lu dul nitam موتاه مي سورة الكه سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم أفي حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولم يفتنون يا لنين ولقد فتنا الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يا لنين دما واتشي آية بو خمنا تي سورة العنكبوت ما وخني na ngeen def très yàlla du ma bàyyi sama benn jullit mu di ma jaamu lu yàgg te nattuwuma ko xam nga natt boobu lan la damay xool ba xam ndax dina gëm wala du gëm su ma ko nattoo natt bu metti mu gëm ko inna ma al usri sa nee na bu jógee ca natt boobu xéewal kese lay am le restant de sa ndax jël na nattu boobu teg na yàlla moo ko ko teg déggul ñu naan ko yow da nga doon julli kon yow da nga doon gis tal moo tax yàlla toroxal la nii wala da nga inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran ndegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla nattu la yàlla bàyyi seetaan ñu njibar ko def ko ci teen bu dëy lu mat 30 mètres ñu gas ko ba musul def ci njibar benn jigéenu yahud def ko ñetti fas-fas mu toog lu mat ñetti weer munul sax jug julli ah yàlla ki nga xam ne moo gën ci mbindeef la yàlla nattu mu seetaan ñu njabar ko ba mu jàpp ñun ana ñu ñun ñun lan lañ ana wàllu yu ana ñeneen ñi wa xaatamu nabiyiin wa moo gën ñëpp fu yàlla bàyyee ñu natt ko ba munul sax jaamu yàlla ci la yàlla wàccee ah qul a'uuzu bi falax qul bi naas ah loolu rek doyul ndey bët sax dal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xëy munul dara. يلا واتلكو آية بوبو إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين suñu yonent bi bët dafa am lam am na ñoo xam seen bët lu ñu xool mu yàqu am na ñoo xam ne seen gémmiñ lu mu tudd mu yàqu ci la ko yàlla wàccel aaya boobu ne ko way ni yakaadu ladina kafaru ñii nga xam ne dañoo weddi yàlla defe ne dinañ la sonal dinañ la jibar dinañ la def lu ndax dinañ la xool ci seen bët ba nga yàquli déedéet ñuy wax dangaa dof yàlla nee na man maa lay aar moo tax ak a baax loolu ci dindi cat wa in yakaadu alladina kafaru la yudliquunaka bi absaarim lamma samiu dikr wa yaquluuna innahu la majnun wa ma huwa illa dikru lil alamin naka la ko suñu borom bi wàccel aaya boobu mu def ko def ko ci ndox daal di koy sangoo yàlla may ko jàmm nii la suñu maam aadama ñu wax la na xar moomu fan la jóge بذبح عظيم مانام خرموري خرم بني ديلو تي غيناو تي استوار مام ادمه باغا خامي ني جيلنا نياري شيخ يي غوري ني نك كين كو بوكال بير دوسييك موم هابيل ني كو شيخو قابيل ناي سيل قابيل ني نكو شيخو هابيل ناي قابيل ني باغنا لبودا ميغا خامني موي شيخام مو دخ beneen seex bi nga xam ne mooy ci xaabil mu ne déedéet haabil mu ne man duma ma jël seexam ku nekk na jël sa ñu ne ko mënut a nekk yéen bokk benn biir dañ koy jaayantal bu ñuy juddoo ñee juddu ñu jël jaawale ko noonu lañ leen doon def mu bañ ne ko la axtu lan na dinaa la rey de xaabil ne ko dinaa la rey mbon yàgg na ci ñu bokk ndey ak baay moo tax bu ñuy gis ñu bokk ndey ak baay di noonoo ñu ne lu leer ma ne leen doo leen dellu histoire yàlla maa farat naa fil kitaab yàlla bàyyiwul dara ci alxuraan ñi bokk ndey ak baay ñoo gën a mun a noonoo sax ñi bokk baay te yàlla defal na yépp ci alxuraan ki njëkk a ci àddina qaabil la te mook haabil ñoo bokk ndey ak baay ko dinaa la rey mu ne ko in basatta yaddi li aqtula nii bi baasitin yaddi li aqtula inni axaafu llah rabbal alamin mi ngi noonu yàlla yàlla may ñu nekk ñu gëm yàlla nee na ko Haabil ne ko bés boo yëkkatee sa loxo bii pour di ma rey man du ma yëkkati sama loxo dina rey ndax damaa ragal yàlla rabbil alamin mu ne fa sawwaathu nafsu qatla axi fa asbaxa na annaadimin nee na seytaane dugg ko bakkanam noot ko mu rey frère am daal di nekk nag ci ñi nga xam ne dañoo torox ci àddina mais bi ñuy dem ci li indi histoire xar moomu Haabil cultivateur la baykat la woon Qaabil déedéet Haabil sàmmkat la woon Qaabil cultivateur la woon bi ñu nee na ngeen def ñaari qurbaan mooy ñaari waat yoo xam da ngeen di tem ci doj bi ngeen teg foofu booba boo leen amee litige ci tangu maam aadama dañuy wax demal nga jox nga ya ya kok wad moy ku nek def li nga gëna bëgg nga tek ko su ko defé bi nga xamné safara bi moko lak mom lañ nangul nee nañ dem ci géttam seet xar ma gëna mak ba gëna douf ba gëna am béjjën ba gëna sour mu jël ko indi comme qabil amon na déjà ay intention yo xamné yu malsaine dafa né man lii ma bay jël la ca gën a ñàkk solo def ko ci benn palaat la gën a ñàkk solo ci mbay ma jëlul ca mbay mu baax ma de la gën a ñàkk solo mu dem teg ko ne de toute façon ñu nangu ko ak ñu mën a nangu ko sama yoon nekku ci ndax xam naa ne sama papa habil dong lay lii donc amoon na intention bu ban dee la début moo tax ko bon munoo ci dara da koy judduwaale rek moom bonam daf koo yor rek màggaale ko bañ frère bi ba lii am bi yàlla wàccee safara bi mu lakk fur wi yee kee indi ak mbay ma dal di jël xar mi yóbbu ci kaw xar moomu lañu bàyyi ñu di ko sàmm ci ajjana ñu di ko sàmb ci ajjana ñu ko sàmm ci ajjana ba yàlla jote ko ismail alayhi salaam donc yàlla def dara ci hasard yàlla def dara ci hasard ci lañ jote ismail alayhi salaam jibril jàpp loxo maam ibrahim daal di koy teg ci xar bi mu ne wa fadaynaahu bi zibhin azim maanaam ma jot ko ci xar moo xam ne xar mu mag la xar mu duuf la xar mu mag tabaski la moo tax nag sunu gaañi bu ñuy wax ne tabaski ah xar mu rëy la ah ci ki ko man ci ki ko man laa yukallifu llaahu nafsan illa wusaha yàlla nee na du ma forcé kenn wala teg kenn lu mu mënul ku am xaru 40 000 jëndal ku am xaru 30 000 jëndal waaye ku am xaru ku mën xaru cinquante 000 nga jënd boo mënee ba meuna dimbali dimbali ñi ci dess waaye wa amma bi ni'mat rabbika fa xaddis bu yàlla maye nanga ci tedd bula yàlla maye nanga ci tedd bula yàlla maye nanga ci dund def ci lu bax waye nak bul fàtte sa bop waaw di sayidna ali radiyallahu anhu karamallahu waju imal li dunyaka ka annaka taishu abadan wa amal li axirata annaka tamutu nee na defal sa àddina nga di ci dund ba ci léegi mel ni yow doo dee ba mu ko waaye nag fàttalikul sa àllaaxira ba booy jógee di jaamu yàlla di def lu baax mel ni suba ngay dee jigéen nag dañuy laaj ndax war naa tabaski ah jigéen war na tabaski ndax yàlla fu mu tuddee ku jigéen bu baax bu jigéen jigéen ju baax tudd góor gu baax wal muslimiin al muslimaat wal mu'miniin wal mu'minaat والقانتين والقانتان والصالحين والصالحات والحافظين فروجهن فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يلا لمو تب تي رك تدنو كو جيجين واو انا خلقناكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يلا أنا من ما جل دوم ادم def بن خيط بن xeet ويجور أجين ku ci nekk nga am say devoir am say droit kon nag jigéen bu la ko yàlla mayee nga am sa salaire murum ngaa tabaski waaye nag liñ ciy bañ rek mooy yàq bi bu góor gi góoram kër ga reyee xar jabar ji rey xar doom jaray xar man day ci sama xalaatu bopp au lieu que jigéen ka di di rey moom tamit muy nekk ay xar de trop jëlal sa xaalis bi nga waroon lii nga seet miskin yi nga jox leen am nañu tabaskiwul nga may leen xeyna bu bu ñett ba ñent defé di yow ñoñu dinañ am tabaski dañ tabaski ñepp bekk ah lool lañ amoon ci luñ leen doon wax ci histoire tabaski lepp lu ci rafet jub ci suñu borom la lepp lu ci manqué ay nit rek la wa ala wa alaykum wa rahmatullahi